jërëjëf élèves yi yéen yi nga xamante ni yéen a war a dugg si rapidement ci défilé bi dugg si leen ndax dama bëgg Moustapha bu da kàddoom daanoo pare bi ak mare bi yëkkati kàddu joxe diplôme su ko defee ñu mën leen a yi ndax xam ngeen ne xat nañu lool. kon dañuy wax ne liste bi nga xamante ni mooy gédee ñoom itam terminal jàll ci ngoon gi ñoo nekk nii Ndey Fall Fati Diop ak kii di Ndey Jaw ak Ndey Tabara Diop Daba Ndiaye. Fati Diagne Dior Fall Say Say Nabo Fama Fall Ndey Seck Fati Diarra Ndiaye kii di Njóoba Ndiaye Fati Sey ak Ndey Yacine Ndiaye Mbayang Gueye Soxna Khady Dieng faati njaay Daba Ndiaye Bintu njaay Maam Diarra Diop enfin Khoudia Ndiaye ñii ñoom ñoo jàll terminal bi ñu ñëw ci wàllu suba gi ba tey centre de terminal ñi jàll Njaba Diop Njoba Diop kii di Njoba Ummi Bey Maam Jaara Sey Ami Gueye Ngabe Ngalle Ngalle Gueye Maam Jaara Jaw Ndey Biti Njémé Cuba Kebe Maam Fatma Diagne Marem Ba Njoba Jama Jama Gueye Xujja Xujja Njaay Maguette Diouf Ndioba Sall Marème Diagne Fatou Digan Soxna Ami Lo Ndey Mbeng Caba Ndiaye Penda Mbeng Maam Jara jaañ kon ñii ñoo jàll ci terminal bi nekk Guédé kon euh, ni ñu leen ko waxee woon rek Moustapha dañ lay bàyyi nga daal di jël discours ana xale yi war a def défilé bi rapidement ñu passé ah ana lettre ana Elimane Elimane mu gaaw xam naa ne dana jégalu suñu mustafa Moustapha ana ñi war a def Khady sëy fan la nekk na ñëw ñu jox ko benn cadeau moom itam en même temps Khady Sey maana ndooy ñëw bi nga yore nga ni ko maana ndooy Moustapha ñëw maana ndooy waa centre Ndindi war nañoo joxe cadeau waa centre Ndindi war nañoo joxe kado waa centre Guédé war nañoo joxe cadeau waaye dañuy joxewaale discours yi moo tax Moustapha yow dañu lay bàyyi bu ko defee bu fekkee jekk nga nga commencé sa discours. mais Moustapha le temps que xale yi di yéeg di joxe cadeau yi nee naa leen cadeau yi bari na bari goo xamante ni nañ koy joxe noonu rek. kon ñu àndandoo tàccu Moustapha Nguer is back mu defaale en même temps lii ngeen seen yëpp ay cadeau yu jëm ci Nguer. kon mën nañu wax ne centre de formation bu si nekk indi nga sa cadeau waaye loolu lépp gis nañ ne mën na guddi ba tax na daal vraiment su ma sañoon ñu commencé discours yi su ko defee sunu marraine bi ak parrain bi ñu mën leen a yi Moustapha ñii ñëw ñu mu doon ñii. waaw mi ngi nii ñi nga gis ñii ay jàngalekat nañu yu am maanaa nekk ci centre de formation bii nga xamante mooy centrale bi di Nguer ISBAC. ñoom ñoo nekk noonu di joxe seen cadeau. saan ci wàll gi. kan la ñuy jox cadeau bi nag. Khady Seye la ñuy jox cadeau bi. tàcc leen Khady Seye bu baax a baax. yéen ñooñu ci topp gaaw leen yéeg mu gaaw rapidement. tàccu leen Khady Seye moom fii la jàngee ci centre bi moom itam ñu formé ko muy jàngalee fii ci centre bi. Sadda Sadda dama bàyyi xel ak rabol bi dama bàyyi xel ak diggante bi bala maa surux dama xool rek yow dama siñaale arrière bi wóorul dara. ay mu gaaw waaw mi ngi noonu rapidement soxna sey ngeen ayca kado baa ngi noonu tàccu leen ko bu baax a baax kado bi lan moo nekk si biir Modou Mbaye Ndiaye préparé wul at mu jot comme ni ko baaxoo di defee. maytul siso bi. ayca oh là là. maytul siso bi xale yi maytul siso bi. te xam def leen ndànk rek maytu leen siso bi lubbulo de laay seen ci biir lubbulo génneel leen ma ko mu gaaw rapidement xaw ma borode mari gay la xaw ma ñu sóoraale temps bi temps bi dafa xoj dañu xoj tàccu leen bu baax a baax mi ngi noonu ay borode mari gay la daa mel ni de wala borode mari gay la waaye tàccu leen ko tàccu leen tàccu leen nu talal ko waaw. centre formation Noreyni Couture nanu ñëw centre formation. Noreyni Couture tàccu leen leen tàccu leen lii waaye am na solo. sant tabarkalla ñu boole ci ay dàll formation kër sëñ Massamba Diop Sam nanu ñëw ñoom itam ay xool leen yéen bu fekkee ni jox ngeen xar yi da ngeen di wàcc ñeneen ñëw. waaw ko pare rek mën ngaa may sa borom day xaw a xaw xaw a yéeme de. man ngeen ko lemee suuf wàcc leen. centre de formation Noreyni Couture ana centre de formation Noreyni Couture nanu ñëw Noreyni Couture Noreyni Couture rapidement. Noreyni nanu ñëw. nanu ñëw. Moustapha ñii ñëw ñan la waa Jaara Jaañ Moustapha ñii ñëw daa mel ni waa Gédé lañ wax ñoo ñëw de Maam Jaara Jaañ Maam Jaara Jaañ anamu acca mu gaaw ñan ngeen di kan ngeen di jox kado bi Maam Jaara ak Moor Moor Gueye Maam Jaara Jaañ moom la ñuy jox kado bi ay formateur lañu ak benn formatrice Moustapha. Moustapha commentaire fi mu gaaw Moustapha. waaw commentaire li ñu gaaw. ayca am na solo. waa xaaral nit ñi pare. yéen waa fan ngeen. waa. waa Ndindee noonu waa ku ngeen di jox kado bi. waa Ndindi. Ibrahima ak ak Mame Bousso Ibrahima ak Mame Bousso doy wuyul fii ci suuf. dafa war a défilé maana ndooy wuyil ci suuf maam Bousso ngi noonu. kooku ah borom jaali batu moom Serigne Choy bu saan macha allah am na solo solo lool. pour centre ba. fu la jëm. ah seen waa centre yi na ko moom ndeysaan. ayca am na solo Serigne am sa Mbakke borom jaali ba. am na solo lool. acca waaw dafa bëgg photo Mor mi ngi noonu Mor Gueye moom la ñu jox cadeau liggéey bi rafet na am na solo macha allah grand Mor. téye leen ko. photo ko nañu dajji cadeau yi bala ñu agsi rapidement mu gaaw. acca man ngeen a dellu seen place keneen ñëw. ah pareegu leen. gaawal waay. soxna si dafa nekkaat ci ay ité. programme bi seere na te ñii ñoom itam suba dañu war a démarrer seen programme. kon dañu lay bàyyi rek Moustapha nga def euh, discours bi nga xamante ni moom nga bëgg a def waaw nañuy nañuy wàcc moor tàccu leen ko bu baax a baax moor wutal mbuus nga defal ma ci affaire yi bagaas yi moor <laughs> ayca ayca ñu njëkkanteeg waxtu bi Moustapha léegi dañ lay jox Moustapha léegi léegi dañuy bàyyi léegi ñu wàcc ñu joxe kàddu yi dañuy xaar dafa guddi deret bi yëpp Bousso Bali la centre formation Noreyni Couture yéen a ñu bloqué agsi leen mu gaaw rapidement centre de formation Noreyni Couture voilà mi ngi noonu Noreyni Couture dañu jox aha aja dem leen noonu taxaw waaw nu gaaw tuuti waxtu bi dafa xat Eh, yëkkatee leen cadeau bi mu gaaw ayca mi ngi noonu rapidement baax na c'est bon waaw baax na loolu am na solo waaw loolu waaw man ngeen a wàcc jërëjëf jërëjëf waxtu bi dafa xat ñu àggale liggéey bi ak ay cérémonie kon Noreyni Couture ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñi waral bés bi nag ñi nga xamee ñoom la ñuy jox diplôme yi jege si leen yéen mën ngeen a ñëw allo da ngeen ñëw incha allah après. jeex na jeex na jeex na na ma élèves yi terminal yi nan yéeg ci kaw. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi nga xam ni. élèves yu yi ana ngeen. ñoo teew fii. yéen ñi yéenay terminal. ñoo ngi leen di nuyu te. ana di képp koo xam ni teew nga fi. élèves terminale yi anañu. mu mel ni xam naa sunu discours dañ koy tënk rek ci nuyu sunu gan yi nga xam ni ñoo ñu seet si nga xam ni lu mu gàtt gàttit danañ ci gaaw profité nuyu leen dalal leen bala ñu leen a jox kàddu gi loolu moo waral ñu jiitu leen pour jot jël kàddu gi ba pare di si jiital. waa direction des emplois kii directeur bi di monsieur Modou Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaar mu mel ni teewut waaye am na ñoo xam ni ay ndawam lañ euh, mu mel ni ànd na ak Serigne Sidi ak euh, monsieur Ñing ak it kilifa yi nga xam ni ñoom la àndal ñoom ñëpp ak yi soxna yoo xam ne gis nañ leen fi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi nga xam ni am ngeen ko sunu xol sedd na lool yàlla xam na ko bu leen demet ngeen jotal ñu ko kilifa gi ba mu dégg ko bu baax a baax xañ na temps bi moo gàtt ñu bëgg leen a jox kàddu gi waaye daal ni ngeen xam ne sunu xol sedd na bu baax sëriñ Sidi dañ ñëng ak mbooleem ñi ngeen àndal ñëpp rek da ci tim teg sunu kilifa bu baax it tim gi nga xam ne moo di soxna Mariama Ndiaye di ko wax madame Mbacke di directrice bu SEDAF. Toola Diop yéegal nga défilé Toola Diop. mu ànd ak délégation tim bu am solo soxna yi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp gis nañu leen euh, jàpp ñu seeni i tur ndakoon ñëpp danañ ko tudd waaye nag bu ñu tuddee soxna si rek. Toola matal na lépp kon soxna si Mbacke ñu ngi lay wax dalal ak jàmm fii ci centre formation couture bu. Nger Isbaat ñu tëddee ko kër Serigne Fallou fii mooy kër Serigne Fallou soxna Mariama Ndiaye euh, nga xam ne moom ñii nag bëgg nañu ngeen xam li tax ñu tuddee leen bés bi mooy soxna Mariama Ndiaye doole Diop képp koo xamee si ni ne mi ngi def formation ci diggante ci maam dañ naan ci région de Diourbel bii am na ci wàll kon kooku yell na doole Diop ñu tuddee ko bis bi ñi nga xam ne tim ñoo di waa direction de emploi ñoom it doon ñoo xam ni kenn ku nekk xam ne seen taxawaay si jàppale nit ñi nga xam ni ñoo yor am xëy wala ñu ni ñi bëgg am xëy kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm di wax ni daal xale yi ñu ngi nii sant formation couture bi Touba la Diop manqué na ay ndaw yoo xamante si ni ne am nañ si lu ñu jàpp loolu moo waral ñu créer centre bi tudde ko Nguer is back di fi jàngal xale yi ñaw nga xam ni ci diiraan bu gàtt lañ leen di jàngal jox leen seeni diplôme te itam ñu bëgg a jàpp ci liggéeyu réew mi ndax ñun dañoo doon ñoo xam ni duñ xaar kenn ku ñu xam ci lii la ñu xam ñetti centre yi nga xam ne yor naa leen yëpp amu si kenn koo xam ni nit mus na jël benn dërëmam teg ko ci sama loxo ni ma nger maa la jàppale lii ci mbooloo laay taxaw di ko wax ngeen dégg ko mësut am li ñuy liggéey ci la ñuy góorlu di ci góorgóorlu lu ñu am defaat ko ci centre bi ngir lan jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi parce que bu xoolee Touba gisuñu fi kenn koo xamee ni ne ni am na métier loolu moo waral ñu taxawal lii xam nañ ni temps bi xat na waaye daal liñ ci mën a tënk mooy loolu ci gàttal di leen soññewaat nag ci ngeen jàppaleel ñu jeunesse bu Touba muy góor ñi ak jigéen ñi ñëpp bëgg nañu ku leen taxawu Touba koo xool xam ni ab liggéey amu fi ci xale yi go jigéen yi daanaka li fi am yéen ñëpp xam ngeen ko kon li ngeen leen si mën di jàppale doyut xale yi nag ay jàmbaar lañu ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm gëm naa ni ay jigéen lañ ñoo xam ni mën nañ ay góor kon jërë ngeen jëf foofu la ñuy yemale suñu discours jërë ngeen jëf. jërëjëf tàccu kon sëñ Moustapha nga ñëw rek daal di continuer programme bi. léegi dañuy njëkk a jox madame Mbacké muy ñëw ci kaw def euh, discours am. dama bëgg ngeen jóg tàccu madame Mbacké la marraine tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Moustapha. waaw kii bu ñu ko joxee bu kenn wax li muy wax dafa am farata te kilifa la. nañu ko bàyyi xel bàyyi def ba mu wax ba pare nu door a jàll ci leneen. premier diplôme. waaw. premier diplôme mu joxeel ko laata mu yëkkati kàddu tàccu leen ko bu baax a baax waaw Moustapha kii bëgg a jël kàddu gi mooy soxna Mariama Ndiaye madame Mbacke Sadaf ndeysaan alma bi mu xaw tuuti li tax ñu tudd ko ma jóg ànd ak président communicateur soxna Mariama Ndiaye madame Mbacke Sadaf réew mi ku ko fi xamul dégg nga ko social moo ci man femme développement moo ci man am yar ami teggin ami taalibe waaye ñu dégg ko kenn sëñ Abdou Samad kan mooy baayam Cheikh Awa Balla mbokk bàyyi Cheikh Mouda Awa Balla Awa Balla ku ma jul maam jàng warax mbooj madame Mbacke Sadaf département bi xam nañu la waa Mbacke xam nañu la gox geeg goxaat yi xam nañu la taalibe sëñ Bamba yi xam nañu la tey jii ñetti programme nga war caa kon maa it damay dem ca décembre eh dama ne ana waa kër Moustapha waxuma loolu da ngeen jóg taxaw ana ñu sopp sama yaay Mariama Ndiaye ana ñu sopp Mariama Ndiaye président. jërëjëf kooku mooy Sadda Niang yow foog Xaadim Rasool sa animation am na solo. nu jox kàddu gi nag El Hadj Modou Mbaye Ndiaye géwalu Xaadim Rasool président communicateur ñun ñëpp nu maase déglu Modou Mbaye. waa mbokk yi asalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, balaa ñuy jox kàddu gi madame Mbacké ay kàddu yu gàtt rek lay tënk madame Mbacké di la ko seereel di la nuyu di nuyu mboolem délégation bi nga àndal yépp di nuyu tamit directeur d'emploi bi nga xamee ni mooy Pape Modou moom lañu pare na bis bi ak délégation bi fi teew di nuyu ay kilifay Moustapha Nguer tàmbale ko ci waajuram ak Serigne saaliwu Nguer mi nga xam ne moo ko yëkkati woon teg ko ci samay loxo ak mboolem ñi mu bokkal famille bi yëpp di nuyu délégation bi ma àndal Serigne Mor moom Serigne Saliou soxna Fatou Thioune soxna Ngone mbay ak euh, sëriñ Wade ak El Hadj Saddaña géwalu jànkat yi euh, Madame Mbacké balaa may bàyyee la kàddu gi lii dafa nekk loo xam ni dañu am fierté ci yéen autorité yi ngeen teewe ko Moustapha Cissé ñi ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bi ak encadrement bi parce que créer emploi loolu képp ku koy def yaa ngi jàppale société bi te képp kuy jàppale société bi dama jàpp ni yaa ngi jàppale gouvernement bu senegal di ci jiital président de la république monsieur Macky Sall Moustapha mii dafa nekk exemplaire boo xam ne képp kuy ndaw maa ngi sàkku ci ñoom ñu jël exemple ci Moustapha parce que ñu joxe la ngay jàng métier ngay xëy heure di wàcc heure boole kook sa patron bu wàcc jotee nga ne ko damay continuer ndax dama bëgg liggéey bi bañ a tardé suba loolu xol bu rafet moo koy def loolu bëgg sa métier moo koy def keroog bi muy jógee fii tamit di dem Nigeria daf doon dem di dolli xam-xam te ku ne xam na ni aventure lu baax la ci doomu aadama parce que dina tax nga xam àdduna dina tax it nga gën a xam doxalin waaye li may sàkku rek madame Mbacké en tant que autorité parce que léegi la ma préfet woo ni ma madame Mbacke paas ma ko ndax xam naa ni yow ci sa bopp bu fekkee ni ci wàllu administration fépp fooy dem ci ndigalu ministre euh, de la femme ngay demee mu jaar ci gouverneur jaar ci préfet jaar ci sous-préfet waaye bis bi bi mu la koy marrainer boobu sax man yëguma ni yow la ko marrainer ginnaaw bi bi ma jotee annonce laa ko laa xam ne yow la ko marrainer ma ne ko kii nga ko marrainer sunu xarit la sunu jigéen la sunu lépp la waaye ku bëggum réewam la waaye nag tey ñii fi teew jigéen ñi daa ëpp góor ñi kon lii sa domaine la parce que bu ñu la dénkee SEDAP bu Mbacké ah, ngeen di defal formation jigéen ñi ak financement yi tey nga teew fi ñu mare na la bis bi dama jàpp ni tey ay madame Mbacké la Moustapha Nger Nger Isba créé fii kon nag lii ñu bëggoon itam ci administration bi madame Mbacké fi ci sa kàddu jot yi ak sa loxo ak suñ xam gu nu xam sa xol ak sa yéene mu ngeen jàppale Moustapha ba nga xam ni dana gën a mën a encadrer xale yi ba li mu bëgg a def ci ñoom mu man ko def ci ñoom parce que su boobaa semeur dana wàññeeku fii ci réew mi di Sénégal te ku defar benn góor defar nga aw askan waaye ku defar benn jigéen ab société nga defar te jàpp naa fii ñi fi nekk ay ndaw lañ te mënoon nañoo defi leneen baa ñu nekk ci leneen waaye xëy liggéey wàcc am ay diplôme te ñoom it dañuy ubbiwaat ay yeneen i centre kon daal lii lu ñu rafetlu la ci sa teewaay moo tax ba ne woon balaa ngay jël kàddu gi dinaa profité ci occasion bi jox la kàddu gi Moustapha nag ñoo ngi koy ñaanal ci barke sëñ Touba fu mu bëgg a jëm yal na ko fa yàlla yóbbu ci barke sëñ Touba ak ko ko yéene amiin amiin asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon nag ñun ñëpp nu maase rek déglu nag sunu yaay waaye sama yaay. sama yaay bala ngay jël kàddu Moustapha dafa def teraanga jëm daal defal alaaji Modou Mbaye yére bii moo ko solal ndax boobu ba léegi ñu ngi koy solal waaye nee naa ko yére yi dana bari kon sama nijaay Modou Mbaye yére baa ngi ne alaaji Sadda yére ban la daan jox mi ngi nii na ko ñëpp tàllal nu gis ko mbooloo mi Moustapha def na nam daa def jël na yére bi solal ko ki nga xam ni moom moo ko jàngal métier mi ba tax ndaje mi am tey ku léb la nag defe naa da nga bor nag bu la ko lebalee ca mënoo ko fay loo avance na nga ko xeeb Moustapha nii la mën a mel taalibeb Serigne Bassirou Mor bi nii nga mën a mel Abdoulaye Nger nga bokkal Baye nii nga mën a mel Moustapha nga bokkal nga mën a nga bokkal Baye nii nga mën a mel Abdoulaye Cheikh Abdoulaye daaray kaamil Cheikh Abdoulaye yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye ñëpp ñu maase nag déglu kàddu gi bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama doom yi bala maa nuyu kenn sama xale yi les charmantes jeunes filles yi ma jàkkaarloo laa njëkk a nuyu toutes mes félicitations. tàccu leen. yéen laay njëkk a nuyu bu baax a baax ndax c'est pas évident bala maa dem ci keneen nag euh, euh, Moustapha nga may ma ma nuyu délégation bi ma àndal dama juum sax mais dama waroon a jox Modou mbay Ndiaye wala Sadd ñu liir ko wala Cheikh ñan mi dama sant sax bi ma leen fi fekkee bi may ñëw dama ànd ak. soxna Mati Dieng soxna Mati jenn mu sëñ Modou Mbacke mu sëñ Abdourahmane mu maam Thierno Ibra Faat bi may ñëw dama ànd ak Ndey Diop mareyeur Ndey Diop mareyeur ku ko xam-xam ni femme de développement la femme entrepreneur la bi may ñëw dama ànd ak maam Faati Lo maam Faati dafa yor unité am ci liggéey dafa semi xam na ci dara bi may ñëw dama ànd ak Kuna Kebe Kuna Kebe dafa yor atelier de couture bi may ñëw dama ànd ak Maymuna Wele moom it muy femme boo xam ne bu jàmbaara day liggéey bi may ñëw dama ànd ak Nogay Diouf man dama koy wax Nogay Diouf dekkal ngor taalibe sëñ Abdourahman kon femme entrepreneur laa àndal kon nag femme yoo xam ne sur le plan artisanat dañuy liggéey comme yéen di sant bu baax nag di nuyu sëñ Mountakha Bachir di ko ziar bu wér di ko ñaanal mu yàgg fi lool bu ñu taxawee fii Madina Madiana 6 mu ñu bañ a nuyu sëñ Cheikh Say mu sëñ sooy bu di nuyu sëñ bas antañang xalifa daaru mussi di nuyu nag sama sëriñ sama kilifa sama xarit sëñ abdou samat mu sëñ moodu aw bàll mu maa kenn ibra faati aw ñuul ñu sunu gu bees a ngi fii rek ci euh, euh, Madiana sis gi di rafetlu jataay bi bu wér a a wér di wax ni mustafa Nger euh, Nger is back juumu leen te defe naa yéen ci yoon bu baax bi li tax juumuloo dama gis nga def marin bi Pape am monsieur Fall directeur de l'emploi bu nekk ministère de la formation professionnelle kon juumuloo nga wëlbati ko waat def marraine madame Mbacke madame Mbacke nekkal fi ministre de la femme de la famille du genre de la protection des enfants ñi nga xam ne saa yu xëyee ci autonomisation de la femme la ñuy dox pour jigéen ñi autonome nag il faut ñu def lu Moustapha Nguer def il faut ñu créer emploi kon nag soo jëlee marin bi jox ko gestion de l'emploi jël euh, marine bi def ko SEDAF vous avez fait un beau choix di wax rek ni sama xel dafa dal sama xel dafa dal ci ñaari Moustapha yi laay wax macha allah ci Moustapha Nguer mais ci Moustapha sise Moustapha Cissé dama koo xam bu baax ndax dafa jàpp ci SEDAF bi dafa jàpp ci formation yi kon xam naa leen bu baax di wax rek nii mën naa wax ni damay wax en tant que le préfet du département de Mbacké parce que bi ngeen may tuddee kii bi da ngeen ma ko tuddee en tant que madame Mbacké Sedaf mais préfet dafa woo léegi euh, Modou Mbaye Ndiaye ni ko dama waroon a ñëw mais madame Mbacké su fa teewee dafa mel ni l'autorité administrative teew na fa maa ngi rafetlu tamit <coughs> la présence de l'adjoint au préfet de Taïf monsieur ñi ngi sama xarit bi ma ñëwee daf ma sagal jox ma fi mu toogoon xam naa ko bu baax sur le plan administratif kilifa la kon nag lii ngeen def nii ndaje mi fi nekk ñu dañoo war a rendre compte li ñuy rendre compte mooy liggéey bu rëy bi nga def defal ko état ndax lii nga def état la war lii nga def te wax nga ko léegi sa biir wax danga nga ni kenn fekku la ci kenn jàppalewu la ci li ci jëlee da ko delloo delloowaat ci ñoom kon yow da nga ko def jariñoo woo centre bi mais da ngay jariñ centre bi parce que dégg naa sa discours bu baax ci li nga wax kon na xale yi toll nii macha allah yu touche du bois nga jël former leen ba ñu di leen jox diplôme te kenn dugal si loxo gàccee ngaaraama Moustapha Nguer te Moustapha Nguer da nga ne Nguer is back sama jàng anglais soriwul mais is back mooy dellu si nga su la neexoon nga ne Moustapha is go kon nga dem feneen mais da nga toog fi nga dëkk ñëw ànd xale yi di leen former. te lii la preuve dafa mel ni xale li ñu sol li ñu sol ñoo ko ñaw te dafa mel ni euh, durée de formation bi guddul loo tamit c'est c'est pas évident kon nag lii nga def defal nga ko sëñ Touba naam ci dëkk sëñ tubaab bi mais le président Macky sàll nga ko defal les membres du gouvernement nga ko defal mais defal nga ko le ministre Dame Diop mi nga xam ne moo yor direction de l' emploi mi marin parrain bi mais defal nga ko aussi le ministre de la femme Ndeye Saly Diop Dieng mi nga xam ni moom la président dénk njaboot gi ak famille bi ak jeune fille mais defal nga ko tamit madame Mbacké mi nga xam ni moom la ñu dénk au niveau départemental l' autonomisation de la femme et de la jeune fii ñu suñu liggéey mooy topp xale yu jigéen ñi topp jigéen ñi ba fu ñu nekk ñu fexe ba ñu mën a seen bopp lii nga def nii léegi ba jox may jaañ machine jàngal ko ba nga jox ko machine ni ko demal sa bopp loolu mooy créer emploi loolu mooy entrepreneuriat féminin yaa ngi créer ay femmes leaders yaa ngi créer ay femmes entrepreneur kon yow état daf la yoreel njukkal état daf leen a war a delloo njukkal te xam naa sa qui est sûr yaa ngi dem jàll lii avec difficulté ndegam ñi nga xam ne ñi ngi leen di appuyer appuyer ñoo am euh, problème asamaa yow kon nag da nga xam ni à partir d'aujourd'hui te Moustapha xam na sama jikko madame Mbacke boole ko ci sa centre. waaye tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu. madame Mbacke du ma wax sax na madame Mbacke dama le CDH de Mbacke boole ko ci say partenaires gis naa nga signé convention ak le directeur de l' emploi gis naa ko parce que damay suivi actualité mais li ma mën a wax fii en tout cas soxna May Diagne moom dinaa ko dolli beneen machine. tàccu leen loolu May jaan tàccu leen loolu. damaa bëgg nag mu leer ñu suba la ñu ubbi suñu campagne électorale dañuy kon fii ak élection yi di jàll machine du ci mën a jot parce que machine baa ngi Dakar dama ko moom laa doon xaar bu ñëwee ma indaale ko boobu dama la ko doon jox mais comme soxna May Diagne la moom dinaa ko jox beneen machine dina benn machine après les mais yow tam naa jox beneen xool élève boo la neex nga jox ko ko. ñaari mbasi na nga tàccu leen. loolu engagement la danaa ko respecté parce que mënuñu la fay wax bi fu mu jaar gudd. mënuñu la fay lii nga def état nga ko defal li nga defal le ministre de l' nga ko defar. li nga def la direction de l'emploi nga ko defal li nga def SEDAF nga ko defal le ministère de la femme nga ko defal. Albouray Samaam maam ñu lay encouragé bu baax ci voie bi jox nga ñu exemple nag te ñu bëri ci yow war nañu jël exemple ci lii parce que lii xaju ci benn centre de formation lii bu ko état bëggoon a jël dina sonn waa CFP ñu ko. SEDAF mënu ko keneen mënu ko parce que macha allah gis naa te daaw romboon naa fi kon nag ñu lay sant di di la encourager li ñu bëgg a wax yëpp ñu ko wax parce que dafa am feneen fu ñuy dem mais en tout cas xam ne à partir d'aujourd'hui ñi ngi à vos côtés dañu ànd ak yow dee fa ñëw euh, euh, euh, déjà Tafa Cissé mi ngi nii parce que lii ñun nga ko defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sama yéene ëppoon na lii ndax dama bëggoon su may ñëw indaale machine yi mais xam nga xam nga ni mu demee te am na fu ñeneen fu ñuy demaat nii ni ñuy fay xaar kon nag loolu la xale yi gàcce ngaalaama sant naa leen sant seen waajur yi surtout ndax nit boo amul confiance ci nit doo ko jox doomam te non seulement da ngay former mais dafa mel da nga former ba pare créer emploi ndax créer ngay emploi ndax ñii la di lay dafa mel na ñu yor seen entreprise bopp atelier tey entreprise la même bu fa benn nit nekkoon entreprise la kon yow création d'emploi bi ñuy wax yaa ngi ci kon nag di courage asalaamaaleykum. tàccu leen madame Mbacké fàttali kii jël machine bi madame Mbacke nee na dana la dolli beneen machine dolli Moustapha machine Modou ah, ñu koy jox attention Mame Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan la yaakaar président Modou Baye Ndiaye sama président doomi Mame Bàcc Faye Ndiaye ju baax jaa nii am personnalité jiite say naw kenn merul ñu jox soxna May Diagne soxna May Diagne rapidement soxna May Diagne soxna May Diagne défileel Omar Gueye moo koy jox diplôme am Mor Gueye moo koy jox diplôme am Mor is waxtu bi soxna May Diagne ana loto rapidement mu gaaw loto madame Mbacké ñi ngi lay remercier xam nañ ne temps bi yéen ak yéen ñi ngi waaye yéen moom yéen a moom emploi yéen dañ leen di retenir parce que PV bi dañoo bëgg mu riis xam nañ li tax ñu tàcc ko sama jigéen bële soxna Fatiloo borom cere yi unité de transformation Loota Saw Ibrahima Diagne moo koy jox diplôme am Ibrahima Diagne moo koy jox diplôme am Ibrahima Diagne ay ca mi ngi noonu Ibrahima jaañ ak Lota. Ibrahima Diagne kon. Euh, sama monsieur le préfet de sama gér gi nag bu ñëwee ma yow moom yaa ñun la. yëf yi sa yëf la yow la ñu si bii loolu rafet na lool. kon mi ngi noonu xujja ñang xujja ñang monsieur ñi ngi le sous-préfet de moom moo koy jox diplôme am Adja nangul foofu sa diplôme. ay sama doomi baay ji waaye yàlla nay sa njëglaay. ñang baalo ku sant ñang moom day am jom aje ñu jox kàddu gi mu Gningue waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di Cheikh Moustapha Nguer ci ñëw de la formation le directeur de déglu et la formation euh, dañ fi ñëw nag ci turu taalibe ñëwuñu fi en tant que autorité administrative mais taalibe moo ñu fi indi ndax sëñ Moustapha li ma boole ak moom mooy ñoo bokk benn sëriñ muy sëriñ Mamoun Mbacke bu sëriñ Basmor Mbacke euh, sëñ Moustapha am taxawaay bu am solo ci daayira bi lépp loo xam ne lu taalibe di def ci kër sëriñam jàpp leen na sëñ Moustapha mu koy def am na nag ngërëmu sunu sëriñ ñun mi nga xam ne ñoo ko bokk muy sëriñ Maamun Mbakke sëriñ Maamun gërëm na ko kon lii mu am tey ah du doon loo xam ne lu ñu bett la kon dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barke sëriñ Touba lépp lu mu mën ren rek dana ko a déwén ci barke Xaadimal Mustafaa ay waay baax a baax ah, lii de sedd na xol lool kon da ngeen ni ko monsieur le sous-préfet nee na kóllëre moo ko indi loolu tim dafa nekk lu am solo Ndeye Sarr kii nag daaray kaamil bokk na ñi nga xam ne ñoo jiite njàng mi seex Jili mu baax mi borom alxuraan jàmbaari Sëriñ Bamba ji Cheikh Jili borom rese yi waaye tàccu leen jili waaye tàccu leen jili waaye tàccu leen jili moo koy jox ana Pape Bintu bintuloo kan moo koy jox bintuloo kan moo koy jox jaay alaaji ku jox soxna bintuloo loo ma ndaam loo ma sirek ndaam fas waa nga ndaam jili mbay na ñëw yéeg ci kaw soxna Fatim Diop anamu soxna Fatim Diop sëñ Jili Mbay borom longoor borom alxuraan ji eh waaw sama nijaay alaaji mooy jël kàddu waaw sëñ Jili Mbay soxna Faati bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ñoo ngi leen di siyaar te di leen di jéggulu di leen ci lu bëree bari di ci sànni kàddu yu gàtt gàtt euh, di siyaar mboolem ñi fi teew ñëpp nag di nuyu sama jarbaat Moustapha Nguer di ko sant di ko gërëm ndax ko amub yar la koom yi teggin la ku gëm liggéey bi mu nekk la di sant waajuram weetam soxna faatu njaay mi nga na toog di sant ndijaayam Babacar njaay ma nga nale toog di sant Saaliwu Nger jànkatu xasaayit ak Basiiru Nger Mooru Nger ñëpp ay mbokkam ñoo ngi ni teew waajuramu góor moo waroon a ñëw biig dafa fanaan ci ay jàng xam naa moo tax teewul tey ay leen xamal liggéey bi xale yi nañu ànd ak dal mi ngi ci dellu di sant suñu borom bu baax a baax yéen yéen ñu fi bàyyi ndax lu tàmbale woon ci dana guddi ko ñaar fukki person wala matu ko woon nañu xaar nañu ànd ak dal muy dem dem ba yàgg dëkk bi di Touba nga man fee lim santar yu baree bare te yépp mu nekk ci loxoom di leen di jàngal mécc moo xamante ni bii mën na noo dem ba seen waajur di ci tedd kon loolu nag lu jar bàyyi xel kàddu yi nag du gudd nuy wax ci comité bi nekk Touba di sëriñ Abdou Lahad Ka nga gestu Moustapha Nguer ci condition yu baree bari ndax kuy tàmbalee ci benn di dem ba yàgg mu dem ay junni kooku daanaka bëri gu mu nekk ci mbar tal lay doon soo boobee puusee mu dem soo puusul mu dem nga bàyyi ko xel ci lu bari te wàllu téer néew na fu mbooloo di teew te téer teewu fa wala wanewu fa boppam baax na ci téer yi nekk fii ci tuubaa nga teg kenn ci seen loxo di leen di koose ci fànna boo xamante ni ci wàllu modd bi ni sol lay doon bu dëppoo dëkk bi ngay waxtaan ak ñoom ci wàllu liggéey bi nu liggéeyal njaboot gi di waxtaan ak ñoom ci fànn boo xamante ni bi itam maanaam lépp loo xamante ni bi luy jëmee dëkk bi ci kanam la comme ni Touba ci kanam di doxee ndax ki yoroon ñaar fukki personne di ko doxal ci dëkk bi ba yàgg ay junni topp ci moom ku jar a bàyyi xel la ku jar a bàyyi xel la li fi soxna si fi wax nag léegi lu am solo la mayee na fi ñaari machine ndax njabootam la te njaboot gi njabootu dëkk bi la kon loolu rek lañ am luñ ci sànni di leen di wax ndax Moustapha mii ñi ëpp ci fammeem ñëpp a nga Europe tukki fa moom loolu neexu ko ñëw liggéey sëñ Touba gi ci dëkk bi moo ko neex xale nag buy dem an fokk nga jàpp ci ba mën a tegu ci yoon woo xamante ni bii njariñul waa dëkk bi yëpp lay doon ginnaaw loolu fàmmeem ñi ci tukkiwul mooy sëriñ Saaliwu Nger Male moom itam liggéey sëñ Tuubaa ci xasaayit moo ko ñor ba tax mu des ci dëkk bii nii toj na ndooyeen bi ginnaaw lii nag am na fi te yàlla xam na ni luy dox la ndax waa juróom Faatu Njaay ma nga toog day lum liggéey dafa xëy gontu muy ko làq ngërëm Moustapha mii di ko làq ngërëmal waa juróom te lool rek moo am ci xale bi kon yàlla na ko yàlla doole dimbali kàttanal ko sàmm ko aar ko bi jaay sidil wujud alayhi salaatu wasalaam ci barkal tàccu sama nijaay bu baax a baax a baax jërëjëf kaddu yam na solo kon sa jili yow itam da nga jël sa kaddu rek balay Moussa ak si nga leeral aoudu billah mina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi góor jigéen mag ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm tey tàkku ci yéen di baalu ak ñëpp yàlla boole ñu jëgal di fa ci yéene ñëw nag di am mbégte lool ci xale yi nga xam te ne ñoo mbokkal ci ñaw mi waaye yàlla def na ci Moustapha mi wax dëgg yàlla kàddu boo xamante ni xale yi nga xam te ni dañuy jàng heure bi ñu war a xëy bu ñu xëyee ndax am na ñoo xam ne heure heure am na heure yoo xam te ne dañ koy xaw a tardé ñu bàyyi ci xel heure bi ñu war a xëy ak heure bi ñu war a wàcc heure bi ñu war a gont di ko bàyyi xel ndax heure bu ñu war a xëy am na ñoo xam ne dañuy tardé seen heure boobu di jaadi ndax seen kilifa yi nañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax xale yu góorgóorlu ndax xale yi ñoom buñ buñ bëggee mokkal njàng mi bu fekkee da ngaa ci heure bi nga war a xëy ak heure buy wàcc ak heure gont da ngay fekk day fekk ngeen gaaw a mokkal ci ñaw mi kon am na njàng moo xam ne ñu yàgg na ci yéen lool waaye njàng mi wërte yàgg ci yéen ndax teel a mokkal dafa baax lool te yam heure bi ngeen war a xëy kon ñu góorgóorlu seen téléphone yi képp koo xam ne ñëw nga ci ci bi di jàng téléphone yi dañ koy aaye ngeen téléphone wax tax dañ koy aaye ci bi kon jàng rek lañ la fi tafa tafa moom rek la xam ndax joxlawul kenn alalu ah, xaalis xawlul kenn moom ku jàng rek la gëm kon nañ góor góorgóorlu bu baax nag ci njàng mi kon di jégalu bu baax nag euh, ci kàddu yi xam naa xat na lool waaye di ñaan suñu Muntaxa soxna may jaañ lool eggale ko Fatabara woon ci barkeb Sëñ Tuubaa moom dafa xam boppam kenn du ko jaawale jërëjëf Moustapha waaw ay jërëjëf Moustapha dañuy daal di dem jërëjëf kontaan nan jërëjëf soxna may jaañ te filé soxna Sarr Tabara Sarr Aïda Fall Ndey Diagne ñi leen soloon na yéen mën ngeen a xaar ci suuf diplôme it buñ paree dañ koy ramasser jox ko direction de l'emploi ngeen def ak moom photo de famille ñu collecté li nga xamante ni mooy mooy kii bi mi ngi noonu loolu xale yi ñoom ñoo ko def muy lu am solo ayca yéeg leen ngeen défilé rapidement soxna May Diagne tàccu leen leen ay waay Samba. mi ngi noonu macha allah am na solo loo romb moom bu soobee yàlla di nga ko bale waale waaw Kumba sa ñëw su baax na de. lii ban xeet la Jàmba Jóob la. lii kay daa mel ni Jàmba Jóob la ne kër sa Abdou Karim Sadda yooyu ñaw bi Jàmba Jóob. nga ya Jàmba Jóob Awa dañ laa war a solal waaye gisuñu la Awa kii di ñëw kan la Abdoulaye Abdoulaye kii ñëw kan la Moustapha soxna may moo ko solal soxna may moo ko solal nday waaw eh. lii lan la nii eh, waay samba fii ah? jàmba jóob baa ngoog lii rob na mariage la maytul pegg bi waaw kay maytul pegg bi waaw na del si ci ginnaaw ah, Baye Cheikh waaw xam nga lu ma bëgg waaw ñii liñ nga xam ne dañ ko doon liggéey ay at ba tey jii ñu toll si li ma bëgg mooy nañ jël seen temps ñoom ñëpp ñu maase xool xale yi li nga xam ne ñaw nañ ko nañ jël temps guddeegul ñu wan xale yi li nga xamee si ne euh, sol nañ ko ñu wan ko seeni kilifa loolu lañ bëgg. jërëjëf Cheikh Moustapha wax na lool am solo. Ibrahima kii di jàll léegi daal mel ne lim sol lu weex lii kayit da cee bokk wala. waaw kon mi ngi noonu kayit da cee bokk. li ngeen sol rafet na lool seen ñaw yi macha allah. tàccu leen ñu dellu seen place tàccu leen. rawatina borom ndey jaañ ndey jaañ soxna may faal moo ko solal soxna la moo ko kii kan la nii Ibrahima ayca commentaire kan kuy commentaire foofu yow kay yaay commentaire comme Modou Mbaye Ndiaye jógewu fi kay. ana Modou Mbaye man xam nga damaa jaarul ci téer man tapise laa jaar. lu mu sol wax leen ma ko ma wax. waaw kii kan la nii. soxna May Fall. soxna mbay Fall. Aminata Mbaye. joxal Ablaye Ndiaye ku micro bi mu commentaire. waa ana Ablaye. Ablaye kii lu mu sol waxal. Ablaye Ndiaye. waaw kii mi ngi sol rob bu jël taay. rob jël taay. Ah, ñu defal ko valanc ci suuf. mu am cat ci ginnaaw. Mhm. ñi nga xamante si nii moom ay mariage yi def ak yooyu. waaw ñaare OTC yii lañ koy ñëw. Mhm. macha allah foo ko sol moom fa tabaarakalla lépp jàmm. mooy rob bu jël taay. mooy rob bu jël taay. tàccu leen rob bu jël taay kon. ñu defal ko gaas ci kaw. def ci garniture bu rafet rafet. defal ko maas bu gudd. nga seen pochette bi mu yor moog garniture bi macha allah noo daal di ànd kon mu daal di ñëw ah kon Mame Mor téyel ko ci ginnaaw ndax mu mën a dox normal. sinon rek dina daanu waaw bala moo daanu. defal ndànk waa ne nga loolu defal ndànk. tàccu ah, waaw góor Ablaye noonu la ah jërëjëf commentaire bi da ci am solo rob jël taay ñi ko solo la rob bu jël taay rob bu jël taay comme dab ba tey suuf gi dañ koo def volant mhm. mu am cat ci ginnaaw boo xoolee taay bi nii ñu ko ñëwee moom xam naa dina jaaxal gaa ñu bëri maytul pegg bi macha allah fa tabarakallah ginnaaw gi ñu ngi ko xóotal xóotal bu nice nice boo gisee musóor gi musóoroo mook taay bi ñoo bokk leen ci def gaas lañ ci def Ablaye digg bi lan la kayitu ciment la wala tissu ah kayitu ciment la bu la maire jaay caf jàppee nga xam moo taxit ko waay may sa bopp Yacine Ndiaye moo ci topp ah waaw moom ñu ngi ko solo rob bu gàtt rob bu gàtt macha allah léegi dama seetlu fan yi takk yi ku ni takk rek rob bu gàtt ngay def moo tax xam naa moom te mu pëll foofu soo séenee gaz bi dañ koo ras ci taay bi ba mu fees dell ginnaaw gi fasukaay lañ ko defar loxo yi moom macha allah fa la ay na lañ ko def tàcc leen lii rafet na de del sóoraale wëndeelu bi dee leen tàcc waay del sóoraale wëndeelu bi leen ko tàccu leen ko Thiane moo ci topp Thiane Niass kon kim solol na yéeg Thiane Niass Awa Seck soxna Awa Seck ak caan ñas ñëwagun Yacine yaay na yéeg teel ko waaw moom tamit comme dab a tey rob bu jël taay waaw ñu rasal ko suuf gi ah. rob bu mariasa mhm. ndax boo gisee suuf gi ni mu guddee ni nga xamante ni si ni tubaab yi doo nga ko daan sol seen nga gaas bi ñu ko defal ci kaw Baye Cheikh ba tey li ne ci digg bi yëpp këyit la këyit la ba tey këyit la seen nga gan mi tiir bi nga defal ci taay bi del dox ci digg bi macha allah lii moom xam naa moom boo boo ko sololoon kenn fii mhm. ñu foto ko buñ ko esete ak takk lañ koy teg ndeysaan fa tabaarakallah rafet na trop tàccu leen ko waaye tàccu leen ko tabaarakallah lu jàll ci soxna May Diagne moo nekkoon numéro 11 kii yëkkan la Ablaye xoolal kii waaw kii comme da ba tey mhm. robu jël taay ñu rasalaat ko suuf gi defal ndànk defal ndànk ah moom moo am na cas de maytul pekk ngeen li muy gis ngeen ni muy def tàjj leen kii bu leen soxor waay tàjj leen lii maytul pekk gis loxo bi fa tabaarakallaa moom tamit ñi ngi jël fleur yooyu noonu xewoon ay jamono xam naa daa bëgg mu xewaat te xam naa lii dina xewaat ndax ko seen moom dana ko ñawal keneen defal ndànk defal ndànk maytul pekk bi baax na yaay Waarwi TV Nday Njaay ndeysaan yéen a ngi ànd rek te Waarwi TV Mam Jaara saar ku sa maam ñëwul woo ko réseau bi mu toog ci saalam di ko seetaan. numéro 11 bi soxna May Diagne la woon. waar wi TV koso bi nga xam ne mooy jàmbaar. ku jot bu na ñëw. li leer ci dëkk bi lépp mooma. ku jàng Ablaye xoolal kooku moom li mu sol day ah téye leen ko ko. moom mii tamit. xujja ñu ko ñëwal rob bu jël taay. maytu cee joggi. mu yem ci taay bi. ñëwal jël taay bi ras ko moom fees dal ak gaz. jaaral ci digg bi. fa tabaarakallaa moom tamit loxo bi ñu ngi ko ras ba mu fees dell mu ron ñu ron ko ci kaw noonu seen nga langal bi mu bàyyi ci ginnaaw baay seex. langal ba gis naa ko. ah fa tabaarakallaa lii rafet na de. na maytu pegg bi te jox rafet na trop trop sax. tàccu leen lii waay. dee leen tàccu wala da ngeen a sonn. tàccu leen ko mu ñëw. tàccu leen lii. am na kuy fël lu fee de. hee bàyyi seex. mbakke seex lii jaaxal na gars yi de. te man la lii machine bi bëgg a ñëw waa ñaw bi nu mu def ba suuf moo ma jaaxal nii fleur gi de boo koy sànni sama côté rek ma ndax man cee jot lii xanaa feer lañ ci dugal wala luñ ci dugal Ablaye ah lii këyit lañ def ci suuf ba tey Baye Cheikh ay waay Samba xam naa maire yi jaay këyit moom ñu ngi leen di wër Cheikh Moustapha daal jàmbaar lañ ah fa tabarakallah moom tamit seen ngeen lii waaye tàccu leen ko waay rob bi tamit robu takk la barke borom ah, leen lii waay yor fleur am ah seen ngeen fleur gi Ablaye ku ñaw bi ku ñaw ñaw bi ñëw soxna ñang moo ñëw ñaw bi soxna ñang soxna ñang moo ñëw ñëw bi foo fekk sant ñang day mën a ñëw ah moom tamit masha Allah leen ko soxna ñang moo ko ñëw ku sant ñang moom day mën a ñëw waaw kon yaay caan ñas yaa caan ñas yaay soxna nday ndooy yaa caan ñas loolu de xanaa leer na moom di sant Moustapha Nguer bu baax ne waxul métier mi waaye yar bi rek nee na yar nga ko jàngal nga ko métier tàccu yaa caan ñas waaw waaw kado bi jërëjëf waaw waaw sama yaay yow tënk nga ko. Eliman Eliman soxla nañ la fii Eliman. waaw portale ko. Eliman soxla nañ la fii ci kaw taabul ji. Eliman foo nekk. yaa caan jërëjëf. tàccu nekk. ndànk ndànk. njaaya ba ana njaaya ba njaaya ba mayante leen njaaya ba na ñëw escalier bi ngeen di mayante mbayang fay maam jaara jaañ xam naa ni voilà ko mu yéeg tam def ndànk